ko président Bassirou Diomaye Faye dem def différence c'est si invitation Gavi mooy euh, organ boobu nga xam ni dafa xool naka la ñuy doxalee bi ñu jógee si pandémie Covid 19 ak si feebar yi fi am yëpp ñu gis que ne Afrique. vraiment am na sooxe bu bëri bëri bëri bu des si en matière de euh, de médicaments loolu moo waroon invitation bi président Bassirou Diomaye Faye profité aussi euh, euh, président Emmanuel Macron invité ko déjeuner mu dem déjeuner waxtaan ak moom te bi ñu waxtaanee ak moom ñu jéem a xool naka la ñuy gën rataxalee diggante Sénégal ak France mais si rataxal boobu noonu ñu gën a xool naka la ñuy considérer euh, relation bi ñu war a am entre Sénégal ak France mu nekk relation boo xam ne euh, état ak état la relation boo xam ne Sénégal dina si gis boppam France dina si gis boppam parce que tey jii nii lu ëpp si deux cent cinquante entreprises ñi ngi Sénégal fii nii entreprises françaises yi nekk Sénégal donc vraiment loolu lu am solo la te am nga pétrole baa ngi nii di génn gaz baa ngi nii di génn loolu xam ne léegi Sénégal producteur de pétrole la donc dafa am beneen gis-gis war a am si moom dafa am neen ñu ko war a xoole